أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi noo ngi àndaat ak yéen ci téere yàlla bi tabaraka wa taala ba tey ñu toll ci suratu nisa ñuy jël tey ñaari aaya aaya 58 aaya 59 ñaari aaya yi sunu borom subhanahu wa taala mu ngi ci jàngal juróomi mbir bi ci njëkk mooy wujubu raddul amaanaat baada al muhaafaza alayha li war ci ab jullit mu xam ko bu baax a baax boole ko ci pas-pasam mooy delloo ndinkaane ginnaaw ba mu ko wattoo warugar la ci ab jullit ab jullit mooy koo xam ne buñ ko wóoloo du war buñ ko dénkee du war bu ñu amee ci moom yaakaar du tas yaakaar ndax loolu mooy njàngalenu yonent bi alayhi salaatu wasalaam warugar gi nga xam ne lislaam waral na ko raddul amaanaat bépp kóllëre bépp ndénkaane bun la dénk ci lu mu mën a doon nga wattu ko ba waxtu wa nga xam ne nu ngi koy jël siwaat nga delloo ko boroomam comme ni mu la ko dénke woon benn boroom xam-xam mu ngi joxe misaal ci benn waay boo xam ne da doon tukki mu jël alalam ñëw ba ci jàkka ji fekk fa kenn ci dëkkandoo mi mu ne ko damay tukki mu ne ko waaw mu ne ko waaye dama jël sama alal ma la koy dénk amul seede nag maa ak yow ak yàlla ci biir néegu yàlla bi ndax wóolu naa la jarul seede ab jullit bu ñu koy indee ba ci néegu yàlla di ko dénk xanaa loolu rek doyoon na waaye waa ji dem dafay at ñëwaat dem ki mu dénkoon alalam waa ji ne ko xaw ma la yow yaay kan xam nga leen ci triant yi buñ la naree buñ la naree wor bu ndaje yow li ñu ko xam mooy sant bi waaw bis bu la nit yore yore lee dara nga daje ak yow mu ne la sant bi bu yow nga xam ne moom alko nga parce que kii moom moom mu ngi lay jéem a fàtte fàttelu waaw nga xam nga ne yenn alal yi mënoo ko yoreel nit ba pare di fàtte santam waaye nit ñu jubul ñi ñoo mel noonu moo tax bi mu ñëwee ne ko xam nga ma mu ne ma déedéet xam nga yow yaay kan mu ne ko ah xamuloom mu ne yow de fàtte naa la de man maa dëkk palaas sàngam palaas sàngam xanaa bi mu fa dëkkee yàggut gis nga ah naa yàgg naa fa de dangaa fàtte ba muy tukki sax ñëwoon naa ba ci yow ci jàkka ji ci palaas sàngam ma dénk la tàng mu ne yow est-ce que juumoo sëñ bi est-ce que man la ah ne ko wax dëgg yàlla yow la mu ne ah man de wax dëgg yàlla dénkoo ma dara waa ji topp ko tokk mu gis waa ji dëgër mu dem boole ko xaadi bi attekat bi attekat bi daal leen di woo ñoom ñaar daal leen di laaj ñu tontu yow sëñ bi loo jotee kii mu ne dama ko dénkoon sama alal bu ko fekkee kenn man ak moom ak yàlla fan ci place sangam ci jàkk sangam sëñ bi yoo xam nga kii mu ne déedéet dénku la dara mu ne déedéet kii kañ nga ko mës a gis mu ne ko tey ak keroog bu mu ñëwee di ma fayee ko ah d'accord dégg naa li ngeen wax toog leen après dinaa leen àtte ci kanam mu daal di woo benn waay ne ko demal ma ci jàkk sangam bi waa ji wax ne fa la ko joxe xaalis bi demal ma ci jàkka ji nga xoolal nga xoolal ma jàkka ji loolu la dana dafa woo borom alal bi ki dénkaane woon ne ko àndal ak kii nga won ko jàkka ji nga ko joxe woon xaalis bi ñoom ñaar ñu dem affaire bi yàgg trop juge bi jékki-jékki rek attekat bi daan ne waaye yow ñii yàgg nañ de mu ne ko jàkka ji dem sori mu ne ko fayal bor bi fayal fayal fayal fayal fayal nan la xamee ne jàkka ji dem sori ça veut dire que dëgg la kon dëgg la moo tax gis nga ñii àtte na yenn masala yoo xam ne bu bëggee yem ci ay téere da nga am problème fokk nga muus fokk nga ñaw fokk nga ñor sinon nit ñi danañ la indil problème moo tax booy jàng nga war a nekk attekat bis boo reppee ba yem ci téere yi rek da nga am problème fokk nga am hikma loolu lañ naan hikma xereñ xereñ nga ñaw ñor xam nit ñi seen pexe nga xam nooy nooy rëcc ci seen pexe yooyu loolu nag boroom xam-xam yi ndeysaan yal na leen yàlla fay parce que xam-xam daf lay yóbbu ci hikma looloo tax ñu bëri ci ay saay-saay ak ay bandi boroom xam-xam yi daaneel nañ leen bëri na lu ñu leen daaneel ndax seeni pexe dañuy yaakaar pexe pexe yoo xam ne kenn du leen ci mën a génne waaye bu ñëwee rek boroom xam-xam yi daaneel leen ndax li ñu xam moo tax looloo tax ndénkaane mbokk yi lis dafa bokk ci islaam képp ku ñu wóolu dénk la ak noo mun a mel fexeel nga respecté ndénkaane boobu loolu bokk na ci li ñuy jàng tey ñaareel mooy wujubul adl fi lhukmi wa xurmatil xayfi wal jawri fiihi dafa araam dafa war al adlu maandu maandu dafa war al adlu maandu maandu lu war la diggante jaami yàlla yi képp kuy jaamu yàlla na nga yëg ne sa diggante jaamu yàlla yi maandu daf cee war al adl loolu dafa war rawatina nag soo demee bay àtte li gën a garaaw ci àdduna mooy nga nekk àttekat yonent bi nee na àttekat yi ñett lañ ñaar ñi safara lañ dem kenn ki mu ngi ci danger xool leen àtte tey moo tax leen saa nga gis kenn mu ne man damay jàng àtte droit laay jàng droit lii de droit lii de droit de droit wu lan la nekk avocat nekk magistrat nekk juge ci Sénégal wala ci àddina bi ak a garaaw ndax alal alal ni mu jënde doomu aadama yi juge bu ragal yàlla bëreetul àttekat bu maandu bu ragal yàlla bëreetul de waxuñu amul dafa bëreetul paba mu ngi doon nettali benn waaye boo xam ne dafa détourné ay millions ci benn société bi mu détourné millions yooyu mu dem xaaj lii mu denc ko lii mu jox ko soxnaam ñu jàpp ko tëj ko nijaayam ñëw ci kaso bi ne ko ana xaalis bi mu ne mu ngi ci sama soxna mu ne ñaata la mu ne ko 18 millions nijaay ji daal di yëm jël 8 millions daal di ñëw gis juge bi ñu ne ko juge baa ngi ci biir secrétaire bi ne ko juge baa ngi ci biir mu toog rek yàlla def rek juge bi génn mu ne ko monsieur le juge mu ne ko lan la lan la aw ma cot mu ne ko non mbiru diw moo ma indi quoi mbiru diw mu ne ah dugal mu daal dugal mu ne dama indi woon huit millions mu ne noppi xaaral tëj bunt yi wàcce fenêtre yi tàllaam bi ne lan nga indi ne huit millions pour lan mu ne pour ma jox la ko pour nga jàppale ñu mu génn dugalal foofu man ak yow nag kenn yëpp mu daal di génn dem xam nga loolu bu fekkee ne ñun juge yi noonu lañ mel tey fu ñu jëm ci àdduna bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen moo tax yonent bi ne àttekat yi safara lañ jëm ba mu des kenn ki xamul dëgg attewul dëgg safara la jëm ki xam dëgg atte caaxaan safara la jëm ki xam dëgg atte dëgg kookoo rëcc loolu nag moo néew tey bu ngeen gisee tey sunu atte yi xool leen fi léegi léegi la ma benn waay di woo Cees la dëkk benn commerçant bu ko yoreel huit millions te nee na moom moo gën a tuutile ñoom ñoom ñu def seeni plainte ñu jàpp waa ji waa ji am lu mu génne am lu ñu nangu ci alalam jaay moom nee na huit millions lañ ko yoreel mais jot na quatre ak lu des mais ne am na ñoo xam ba léegi jotuñu dara te waa jaa waa ji génne nañ ko mu ngi dox ci mbedd yi di lambar lambar dem yoonam te ñi mu yoreel kenn xamul nu nu toll waa ji nee na maa gën a tuuti ñi mu yoreel kon kooku lan moo ko génne ci biti lan moo ko war a génne mooy xam na lu mu joxe loolu nag moo tax islaam moom li mu xam mooy maandu jullit day ragal yàlla doo ragal nit ñi waaye da ngay maandu ci li ngay def alhukmu waaye jéng ak tooñ dafa araam ci islaam puisque àtte boo àtte fii yowmal qiyaam yàlla dina ko àttewaat inil hukmu alaysa allahu bi ahkamil hakimin ëllëg yowmal xiyaam yàlla dina ko attewaat loolu moo tax boo gëmee loolu di nga taxaw ci kanam yàlla li ngay atte tey mu attewaat ko kon di nga maandu ci li ngay atte ñetteel mooy wujubu taatullahi wa taatu rasul wa wulaatu muslimin mbokk yi war na ci ñun ñu topp yàlla loolu dafa war a leer jullit yàlla la war a topp war na ci jullit mu topp yonent bi waaye war na ci jullit mu déggal ñi ko jiite bu dee ay jullit lañu mu déggal leen ci liñ koy womat di ko yóbbu ci alquran ak sunna mu déggal leen waaye bu dee nguur gu dëng la nguur gu bon kenn waru leen topp loolu tamit dafa war a leer léeg-léeg boroom xam-xam yi di soññ nit ñi ñuy topp seen nguur yi waaw di ci taral sax nag ku ku jaayantewul ak nguur ku deful lii ku deful lii waa ban nguur lan war a wax ban nguur lan war a topp kan ci nit ñi lañ war a topp loolu tamit dafa war a leer la taata li maxluqin fi maasiyati alxaaliq kenn du topp mbindeef ci meru aji bind ji di ut ngërëmal nit ñi fekk yaa ngi bàyyi ngërëmal aji bind ji loolu musiba la innama taatu fi lmaaruf kuy digle lu baax lan war a topp bu dee sunu buur dañoo am buur bu baax bu nuy digal lu baax di ñu tere lu bon digal ñu alquran digal ñu sunna digal ñu diine nguur googu ku ko wàcc booy dee da nga dem safara waaye fekkee nguur gu dëng la di caaxaan di moyloo yàlla nit ñi di def ay fo ba pare di ci woote ba pare teg ci yetam ne ku ñëwul mu duma la loolu moom bu yeboo nga bañ a dem ndax duma yooyu moo tax ne bàkkaar ba mu fay jëlee kon topp yàlla dafa war topp yonent dafa war topp njiiti jullit ñi fi nekk sunu kanam dafa war ndax hadis la yonent bi nee na man ataani faqad ata allah wa man ata amiri faqad ataani wa man asaani faqad asa allah wa man asa amiri faqad asaani yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku ma topp topp na yàlla ku ma topp topp na yàlla ku topp sama njiit topp nga ma képp koo xam ne mooy nga ma mooy nga yàlla képp ku mooy sama njiit mooy nga ma man yonent bi loolu leer na man ataani faqad ata allah ku ma topp man yonent yàlla nga topp loolu aaya alquran la qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni su fekkee li ngeen di wax dëgg la gëm ngeen yàlla man muhammad ngeen di topp te wa man yuti'i rasul faqad ata allah képp ku topp yonent bi topp na yàlla kon ndeket topp yàlla la koy dëggal mooy topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam roy ko ci li mu indi waaye topp ki fi ki wuutu yonent bi aussi topp ko diini la yonent bi nee na ku moy sama njiit mooy nga ma man yonent bi te ku moy yonent bi xam ngeen mbiram wa man yaasir llah wa rasul fa inna lahu naara jahannam juróomeel mooy wala ñeenteel al wujub raddul munazaa aqida aw ibada aw qada ila alkitabi wa sunna wa wujubu rida biqadaiha biqadaihima mbokk jullit yi war na ci ñun nuy delloo atte yi ñuy delloo suñu xëccoowee suñu amee wuute ñu delloo ko wuute boobu moo xam ci pas-pas la moo xam ci jaamu yàlla la moo xam ci atte la ñu delloo ko ci alquran ak sunna lan moo tax tey jullit yi am wuute yoo xam ne kenn mënu ko régler c'est parce que wuute yooyu jullit ñi dañuy bañ a dellu ci alquran ak sunna man ak yow dañoo am benn wuute nii nga gisee nii laa gisee suñu bëggee juboo nan la ñuy def dañuy jël alquran ak sunna rek ah sëñ bi bismillah ah mbir mi de lii la ci yàlla wax mbir mi de lii la ci yonent bi wax jeex na leer na waaye bu nu amee problème ñun ñaar ñu wuute ci nu ñuy jullee wala ci sunu pas-pas wala ci àtte bi lan la ci yàlla wax ñu wuute ci ñuy xëccoo gud guddeeg bëccëg te du ñu juboo kon dañ koo delloowul ci yàlla ak yonent buñ ko delloo ci yàlla ak yonentam rek mbir mi daal di leer ci ñun te loolu aaya la alquran moo ne ñu wa in tanaza'tum fi shay faruddu ila allahi wa rasulu su ngeen xëccoowee ci dara rek delloo leen ko ci yàlla ak yonent jeex na tàkk kon dafa war ci ñun suñu amee wuute wala ñu xëccoo wala lu ñàkk a leer ci suñu diine ci pas-pas la aqida nan la ñu gëmee yàlla nan la ñuy gëmee yonent nan la ñuy dundee alquran nan la ñuy royee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu wuute ci wala benn ibaada jaamu yàlla gi nan lañ koy defee est ce que dañoo war a julli jël suñu loxo teg ko ci dënn wala dañoo war a julli wàcce suñuy loxo xam nga loolu wuute la ñaari nit bu ñu wuutee ci pas-pas boobu julli teg sa dënn julli wàcce nu ñu war a def dellu ci alquran ak sunna suñ demee rek day leer waaye buñ lànkee wala kenn ci ñun lànk waaw ndeysaan benn benn waaye bu ubbi bitig ci benn koñ day ubbi musique bi ba mu fort ndax nit ñi xam ne fii bitig la waa koñ bi ne ko lii temps yi sa musique bi sonal nan de mu tëx a dégg ñu ñëw boole ko kenn ku mag ci quartier bi kooku woo ko mu ne ko waaw yéen alxuraan mooy dundal seen xol ñun musique mooy dundal suñ xol nga wuute nga su fekkoon ne moom jullit la ñu woo ko ne ko gars yi sax waxuñu ko fayal sa musique bi mais dañ ko ne wàññi ko bopp mu ne yéen alxuraan ngeen gëm mooy dundal seen xol man musique laa gëm mooy dundal sama xol waaw foofu la jullit di toll jullit boo xam ne musique mooy dundal xolam juróomeel mooy al aqiba al aqiba al hamida wal xaal al xasana al saida fi raddi al umma al islam ma tanaazaa fihi ila al kitabi rabbiha wa sunnati nabiyiha muhammadun sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi mujj gu rafet al aqiba al hamida mujj gu rafet lan mooy mujj gu rafet mooy nga dund ci àdduna nga am ngërëmal yàlla ba dee ñëw nga am ngërëmal yàlla loolu muy dund bu rafet wal xaal alxasana nga am comportement bu baax comportement bu texe kañ lañ koy am fi raddil umma al islam ma tanazaa fi ila alkitaab sunna kañ la ñuy am dund gu baax kañ la sunu dund du neex kañ la ñuy dund ci àdduna am kontaan te yàlla am ngërëmal yonent bi kañ su fekkente ne bu ñu amee jafe-jafe rek daal di koy gaaral téere yàlla ak téere yonent rek ci jàmm la day nekk ndax téere yàlla bi ak sunna yonent mooy solution solution bu yàlla tegal jullit ci mbooleem dundam kenn ci ñun kii nu toog ci jàkka ji xalaatal xalaat bu la neex génneel ci sax dënn wax ci sa gémmiñ benn laaj nga ni lii ndax lislaam wax na ci wala waxu ci nga xool ndax lislaam wax na ci sa question ba wala waxu ci amul looy yëkkati looy def yow jullit bi nga xëyee ci suba ba ngay delluwaat ci sa kawlal 24 heures bi looy def te lislaam waxu ci amul fekkee da ngay lekk bu dee da ngay naan bu dee da ngay solu bu dee da ngay liggéey loo mën a def lislaam wax na la ci sa dund naka ngay dundee kon nag su fekkee lislaam bàyyi lu nu dara suñu buggee am jàmm nan la ñuy def dañuy delluwaat ci lislaam boobu delluwaat ci téere yàlla delluwaat ci sunna yonent bi alayhi salaam mais feet ñu ngi caaxaan feet ñu ngi wuute feet ñoo ngi topp lu dul alquran ak sunna xam nga fan la ñuy jëmee dañuy gën a wuute rek am na ñoo xam ne fii ci biir jumaa ji ba ñuy dund ci seen jamono tarixa yu ndaw lañu xamoon tarixa juróomi tarixa rek wala tey tarixa yi ñaata la léegi mu mat 200 de te day gën a yokku nag ndax bis bu nekk nit ñi di dund sëriñ ñu bees di ñëw tarixa yu bees di ñëw wala wala am na ci yenn ci ay kilifa diine ñoom ba ñuy ñëw ci àdduna benn tarixa lañ fi indi woon benn seen kër tey am na juróom fukki tarixa ñoom ci seen bopp sax bu ñu dekki woon ñëw seen kër dañ naan waaw kii fu mbokk ñu ne ko ci ci sa bopp mu ne mukk daan kii kay indiwuma ko kii moom lii moom man waxuma ko te ñooñu kooku la ñuy askanoo xoolal lool rek maintenant kër yëpp dañoo tasaaroo waaw mu ngoog kër yu nekk léegi am na yeneen kër yu ci juddu wala loolu nag su continuer xam nga lu ko waral mooy bàyyi alxuraan ak sunna bàyyi alxuraan ak sunna moo tax mbir yi di tasaaroo di dem waaye bu nu toppee alxuraan ak sunna amul leneen luy judduwaat ndax yow da nga dul indiwaat dara ndax ñeme ñemewoo indiwaat kon mbokk jullit yi juróomi tomb yi moom la ñu jëlee ci sunu ñaari aaya yi nekk sunu kanam noo ngi ñaan buur jàlla waala mu dëgëral sunu làmmiñ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يعمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أتيئوا الله وأتيئوا الرسول وأولو الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تعويلا برم سبحانه وتعالى نينا إن الله نكبور يالله جل جلاله وعز كماله يعمركم مولين دي ديغل موم يالله موم an tuaddu ngeen joxe al amaanaati kóllëre yi ndénkaane yi ngeen delloo ko ngeen joxe ko ila ahliha ca ñoñam ca ña leen dénkoon ca ña leen wóolu woon ca ña leen yaakaaroon an tuaddu ngeen joxe al amaanaat ndénkaane yi taslimul mu'taman والأمانات جمع أمانة وهي ما يؤمن عليه المرء مويلن لولو دينك لكو من قول أو عمل أو متاع من نيك وخ من نيك جف واي من نيك أي باجاج من نيك علل ni dina la wóolu ñoo wax la waxam ndénkaane la wala ah benn waaye daw na ñoo yow sa jabar ji bëggu la de mu ne da ngay wax rek ñu ne ko baax na benn waaye ne ko jëlal nen bi nga dénku ne ko damaa nen na ko dénk na ko denc mu ñëw ne soxna si man di dama am lu ma daal mu ne ko lan la mu ne damaa nen bii benn nen léegi nag dama bëgg nga dencal ma ko te bu mu siiw man ak yow mu génn rek ndaw si woo xaritam ne ko sama nijaay daa nen benn nen xarit bi génn yokk ci ñaari nen kam ko ne ñaari nen ko yokk ci benn nen muy ñett balaa ngoon jot neen yi mat na téeméer ndax ku dégg rek yokk ci benn ba waa ji tiit moom ci boppam de mi defoon loolu dafa ne moom mbaa dama nen man ndax ndax information bi ni mu tasaaroo ci biir dëkk bi waa ji tiit dafa ne ndax dafa nen loolu mooy nit ñi nu ñu mënee yokk te loolu ku la wóolu kay dénk la yow kay wax dëgg yàlla alal la la dénk kàddu la la dénk jëf la la dénk ay bagage la la dénk respecté ko beneen waaye dañ ko dénk alal mu lekk alal ci ñu wax wax wax mu ne jëlu ko buur bi daan ne waa ji fexeel ba kidnappé doomam rek nga denc doomam génn rek waa ji daal di jël doom ji denc ko mooy doom la mu dem mu ne diw dafa jël samay doom diw na ko ah du yow yaa jëloon alalu jàmbur biñ la laajee alal ji anam nga ni ci ndax yee ko lekk du yaa wax loolu waxoo ko wala yaa ko wax mu ne waaw moom keesu xaalis la ma joxoon te xaalis mooy xaalisu weñ yi mooy xaalisu weñ moo amoon ñu ne ko ana xaalis bi mu ne weñ yi lekk jinax yi lekk nañ ñu ne ko amoo mu ne waaw léegi nag buur bi daal di wax ki mu ki ki nëbb doom ji ñu ne ko eh ana doomu diw mu ne picc yi ñoo ko yóbbu waa ji waa ji ne woon jinax yi ñoo lekk ñoo lekk xaalis bi mu ne i foo ma sa gis picc di lekk nit mu ne foo ma sa gis jinax buy lekk weñ mu ne jox ma sama doom mu ne jox ma sama xaalis mu ne am na indi joxe xaalis jaamu ni jox ko doomam waaw xam ne gars yi moom vraiment ay pexe la ñuy tëral waaye borom xam-xam yi dañ leen ci génne bi su nekk kon jullit na am na maandu aaya bi dafa am sababu nuzul lu tax mu wàcc dafa am inna allaha yaamuru an tuaddul amanat nazalat fi saani usman ibnu talha aaya bi dafa wàcc ci bi mbiru kenn ku tudd usman ibnu talha moom ci jamono yonent alayhi salatu wasalaam ñoom ñoo doon garde kaaba gi haysu kaana mafatihul kaaba indahu ñoom ci seen jamono maam ñoom ñoo yoroon caabi kaaba gi ba jamono yonent alayhi salatu wasalaam yonent ñëw ubbi màkk xam ngeen kaaba gi ñaata xërëmu ci nekkoon ñetti téeméer yàlla ak fukk ak ñett yàlla ñoo nekkoon ci kaaba gi yonent bi bu mu ubbee kaaba gi daal di daaneel xërëb yi ndeysaan am keneen ku daal di sàkku ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko jox ma ma denc caabi kaaba gi ah yonent alayhi salaatu wasalaam imaam ali sax dane woon kenn du delloo caabi ji usmaan ibnu talha aaya bi daal di wàcc yàlla ne nan delloo ndénkaane ka ko yoroon ba fii may wax ak yéen ñooñu ñoo yor caabi kaaba gi yonent bi nee na ku ko nangu ci ñoom rek bandi nga bi aj bi jeexee ndeysaan ki ko yoroon dafa gaañu daal di koy jox keneen ci waa këram ñoom ñoo yor ñaar ci kaaba gi ñoo yor caabi ji ñoom ñoo yor mbubu bi ñuy muur kaaba gi ci seeni jamono maam mbubu kaaba gi ñoom ñoo ko moomoon ñoom lañ koy jox mais instant yi buuru màkk da koy jëndaat ci ñoom xaalis daal di denc mbubu mi muy muur kaaba gi soo amee ay xaritu buur wala ay président wala ñenn ñu ñu respecté ci àdduna ñu ñëw foofu ñu daggal leen ci jox leen ñu barkeeloo ko léegi ñoom xaalis lañ leen di jox ñoom waa kër Ousmane ibnu Talha buntu kaaba gi deux cent quatre-vingts grammes d'or la buntu kaaba gi ah kilogramme or deux cent kilogrammes or la quatre-vingts deux cent quatre-vingts kilogrammes or la buntu kaaba gi moo ngi jar ci xaalisu Arabie Saoudite 13 millions rial ci CFA 2 milliards et poussière buntu kaaba gi waaw 13 millions rial lay jar liñ defaree buntu kaaba gi ci or boobu bu dee ci CFA yi 2 milliards et quelque la boo ko boo ko boo ko nattee ci xaalis CFA 2 milliards et quelque la kaaba googu nag bunt bi buur yi ak buur yi ne ko doon defaraat ba bu ñu bu mujj bi may wax ak yéen nii nga xam ne noonu la toll ci gramme or somme bi mu jaar ci alal lool la ñoom waa kër googu ñoom ñoo ko yor ba fii may wax ak yéen ndax xadiis yi ci rot yonent bi alayhi salaatu wasalaam jagleel leen ko ne yéen yéen a yor caabi kaaba gi kenn du ko foqat ci seen loxo lu dul bandi lu dul saay-saay borom bi subhanahu wa taala mu ne inna allaha yàlla yaamurukum mu leen di digal an tu addu ngeen joxe al amaanaati ndénkaane ye kóllëre yi loolu moo leen di wane lislaam du diine joo xam ne diine xel la xoolal nit nekk yéeféer ah waaye moom yéeféer la woon waaye mi ngi yor nangam ci palaasu sangam ñu ñëw jël loolu dindi lu bon la fa nekkoon ba pare daal di jël caawa gi caawa gi daal di ko koy delloowaat bu doon tey keneen la ci ñun lu ñuy def moom ay kii na topp fële wax ko wax yu bon daal di jël keneen jox ko waaye xoolal yonent alayhi salaatu wasalaam mooy ki leen ko delloowaat ñoom famille boobu ba àddina bi di jeex ñoom ñoo koy yor xanaa li yonent bi wax rek saa yi ko dindee ci ñoom rek ab saay saay moo ko fa jë- moo ko fa jëlee boobu ba léegi ñoom ñoo ko yore waaw jotewuñu dara ak ñiy gouverner màkk seen yoon nekku ci ñoom daal caabi kaaba kaaba gi lañ yor bis bu ñuy raxas kaaba gi at bu nekk dinañ raxas kaaba gi benn yoon ci biir ak ci biti saa ñu koy raxas ñoom ñooy ñëw indi caabi ci wala ñoo am kilifa gu mag a mag a mag a mag a mag a mag a mag a mag ci àddina bi mu war a ñëw ñu ubbil ko kaaba gi mu dugg ci biir ci biir kaaba gi am na ñu fay dugg ah ñu fay dugg mais yàlla moomu rëy moo leen digal ngeen delloo ndénkaane yi moom sunu borom subhanahu wa taala ngeen joxe mbir mi ndénkaane yi ñu leen dénkoon wala ngeen sàmm ko fi kulli amaana fi'lun kullu mu'taman ala shay an yaxfazahu wa yaraahu képp kuñ dénk dara war nga koo fonk war nga koo sàmm waaw hatta yu adda ila saahibi ba nga dem jox ko boroomam comme ni mu la ko joxe woon waaw mu nga mu ne fa iza xakamtum bu ngeen di atte bayna naas diggante nit ñi an taxkumu na ngeen atte bil adli ci maandute gis ngeen islaam allahu akbar li ma rax lislaam rek mooy dëgg suñ ko bàyyee rek biñ ko bàyyee lañ am jafe-jafe yàlla moo leen digal an taxkumu fa iza xakamtum bu ngeen di atte bayna naas diggante nit ñi an taxkumu na ngeen atte ci lan bil adli ci maandute allahu akbar diddul jawru wal inxiraaf lan mooy maandute mooy contraire contraire u dëng ak jadd di naqs aw ziyaada bul wàññi bul mankeel jugel normal bul xool fi nga bokk bul xool waa ji nangam même bu dee waa ji sa noonu la sax sooy àtte àttel dëgg mais tey xam ngeen ne ci sunu àdduna bu ñuy dund rawatina ci sunu réew yi rawatina ci sunu réew mii waxuma àttekat yi jub nañ de waaye genn wàllu gi ci ñoom ñëpp dañoo dëng ndax li ñuy àtte ci mbedd mi ñu koy gis waaw police rek fii ngay njëkke wala fii ci quartier bi sax ngay njëkke am na fi ñenn ñoo xam ne bu ñu defee dara kenn du ñeme wax waaw wala seen waa kër wala seeni doom wala seeni nàngam waaw moo tax dëkk bi am ñoo xam ne lu leen neex def kenn du leen wax dara parce que maandu tu maandu amul waaw Omar ibnul Xattaab ci jamonoom am na benn gouverneur bu tooñoon di rawante doomam di rawanteeg benn waay rek waa ji raw ko rek mu jël yat dóor waa ji ba waa ji nooy ne ko tax nga may raw yow baadoo la bu bon bi man mooy doomu buur nga may raw ci kanamu papaam waa ji daal dem Omar dem ba Medine ci ak amirul muminin daal di koy boole Omar daal di woo papa ji ne ko ren na nga aj si fekk xamul luñ ko woowee de na nga aj si de invité naa la waaye mu kontaan dañ maa woo aj amirul muminin moo ma woo ne ko booy ñëw indaaleel sa doom bu góor bi ah sa taaw bi yéen ñaar waaw waa ji daal di bu takku ànd ak délégation ñëw fekk Omar Omar bàyyi leen ba ñu yegg si Omar daal di woo waa ji ne ko kan moo la dóoroon mu ne ko kii la mu ne ko jëlal yar bi faylu waa ji jël yar bi jàpp waa ji làpp ko ba mu nooy teg yar bi ci kanam Omar ne ko doy na sëkk Omar jël mbol ne gi ne ku rël papa ji ci bopp bi kaala ginnaaw Omar ne ko kañ ngeen di def nit ñi ay jaam te seen yaay bi mu leen di jur ay gor lañu woon yéen ngeen leen def ay jaam moo tax Omar bi man duubu Rome ñëwee di wër kan mooy Omar Omar ñëpp a ko ragaloon ku dégg turam rek boo moytuwul mën ngaa saw mën ngaa saw say tànk ndax Omar ni mu toll ci ngandaay ah ku seytaane ragal kon nit ñi war nañ la ragal de yonent ne Omar bu jaaree ci mbedd seytaane day daw wiiri koñ kooku nit ñi war nañ ko ragal de man duubu Kisra ndeysaan ruum ñëw di wër kan mooy Omar digg Omar parce que adduna bi yëpp dañoo digg Omar Omar Omar Omar Omar ñëpp ragal ko te mooy amirul muminin mu ñëw ne Omar laay laaj day ne ko jaaroon na ni jëm marché mu jaar ci mbedd bi ku mu dajal ana Omar ñu ne ko jaar na nii de ana Omar jaar na nii ba fi mu mujj mu ne ana Omar benn waaye ne man de dafa mel ne romb naa ko fële ci garab gële mu tëdd mu ñëw fekk Omar mu ngi tëdd ci garab gi mu ngi njaganaayoo ay dàllam mu ngi tëdd di nelaw amirul muminin ci keppaaru garab di nelaw mu ñëw tiim ko ne ko xakamta wa adalta wa aminta wa nimta xakamta atte nga bi nga attee fa adalta nga maandu bi nga maandoo fa aminta nga am sécurité bi nga amee sécurité fa aminta nga am kóolute moo tax nga tëdd fi dina la ban buur moo ñeme loolu ban président Sénégal moo ñeme dem ba Sandaga tëdd fa dina la di sees ci gappaaru garab yi yi leen ma voilà c'est parce que Omar dafa àtte woon maandu dafa yemale woon lépp waaw mës nañ dem benn xare ñu am ay tisi ñu ñëw ñu may ku nekk tisi daggit ñu jox ku nekk daggit ndeysaan gars yi toilettu seen tisi ñëpp ñëw seen seen yére yi gàtt Omar ñëw sol bu gudd mu taxaw ci jumaa ji ayyuhan naas ittaqillah ragal leen yàlla benn waaye ne kenn du ragal yàlla lu tax ñuy ragal yàlla da ngaa ragal yàlla ba ne nañ ragal yàlla Omar ne lan laa def mu ne ko ñun ñëpp yére bu gàtt la ñu am nga am bu gudd foo ko teg nan nit ñi nañ ragal yàlla bala ñuy ragal yàlla nga wax ñu bu gudd bi foo ko jëlee gis ngeen kan moo ko ñemee def tey président la république Omar daan ne ana Abdallah ibn Omar mu ne maa ngi nii mu ne waxal ak waa ji mu ne maa ko may sama bos mu ne ma yokk ko ci loolu tax ma am bu gudd mu ne ko léegi mën ngaa continuer xutba gi léegi nañ ragal yàlla gars yi ah ñooñu noonu lañ meloon ndeysaan noonu lañ ragale woon yàlla moo tax ba ñu jiitee nit ñi nit ñi noppalu parce que lépp lu ñuy def dañ ci xalaat yàlla ndeysaan lépp lu ñuy def yàlla la ñuy xalaat moo tax ñu am maandute ñu am ragal yàlla mbokk yi kon sunu borom nee na wa iza hakamtum bu ngeen di àtte bayna naasi ci nit ñi an tahkumu na ngeen àtte bil adli ci maanduti na ngeen yëg ne inna allaha yàlla ni'ma aka baax yiw kese la ni'mu shay ya'izukum bi yàlla ngi leen di waar ci lii yàlla ngi leen di waar na ngeen maandu yàlla ngi leen di waar ngeen joxe ndénkaane yi yàlla ngi leen di waar na ngeen jëfe ndigal yi bàyyi tere yi na ngeen yëg ne inna allaha yàlla kaana masta dañ samian di dégg waaye basiran di gis kenn ci firikat alquran yi ku tudd said hawa rahimahullah bokk na ci téeréem bi mu doon tafsir quran mu ne bu ngeen di jàng aaya yi na ngeen bàyyi xel aaya yi fu ñuy jeexee aaya bi fan la jeexee yàlla day dégg day gis jullit bu gëm ne yàllaa ngi dégg kon lan moo la war ci sa langage lan moo la war ci say wax jullit bu gëm ne yàllaa ngi lay gis kon lan moo la war a war ci sa comportement ci say dugg say génn say def ndeysaan benn xale bu góor dafa dugg ci marché mu gis xale bu jigéen bu paccal dangal xóotal génne ay awraam comme xale jigéen yi mu xool ko rek bi mu xoolee xale bu jigéen bi rek xelam dem ci benn aaye alam yaalam bi anna allaha yara mu wàcc ay bëtam rek rongoñam daal di tuuru ndeysaan mu jooy ba génn marché bi ñu ne ko lan la mu ne tey yëg naa am naa iman parce que bëggoon naa xool lu bon ab aaya alxuraan dindi ma ci alam yaalam bi anna allaha yara anaa xamoo ne yàlla ngi lay gis alam yaalam bi anna allaha yara yow mi xool lu bon yow mi déglu lu bon yow mi lekk lu bon yow mi naan lu bon yow mi dem fu bon yow mi di fanaan ci lu bon yow mii di yendu ci lu bon yow mii dëkk ci lu bon alam yaalam bi anna allaha yara xanaa yow yëgoo ne yàlla gis na la xam na la hmm? allahu akbar gis ngeen aaya yi ni ñuy orienté ab jullit alam yaalam bi anna allaha yara xanaa yëguñu ne yàlla mu ngi gis wala yàlla du gis yaalamu xaainata al ayun wa ma tuxfi sudur yàlla xam na bët yi war xam na lu xol yi denc inna allaha alimun bi zaati sudur yàlla xam na li ci dënn yi li ci dënn yi yépp yàlla xam na ko balaa ngay xalaat balaa ngay jëf balaa yàlla xam na ko iblis lan la yàqule ba mu xalaatee ne aadama maa ko gën rek ci la ko yàlla dégagé jotu ko sax wax ana xayrun minhu bi ko yàlla wooyee nag muy indi explication ci la commencé wax yàlla xam na li mu doon xalaat suñu borom subhanahu wa taala kon nañu bàyyi xel alquran fi muy jeexee yàlla nee na yëg leen ne inna allaha yàlla kaana samian basir yàlla day dégg yàlla ngi gis te nag foo nekk gis na la wala wala am na fu mu mën a dugg te yàlla dunu gis ah aywa yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm ndeysaan borom xam-xam yi nee nañ yaa ayyuha alladina boo gis amanu tegu ci ñooñu texe nañ allahumma ij'alna minhum yaa ayyuha alladina amanu e yéen ñi gëm ndigal ñëw na de abdullahi ibnu mas'ud nee na abdullahi ibnu abbas saa yoo gisee yaa ayyuha alladina amanu taxawal da lay digal wala mu lay teral mu lay tere yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm atiu llaha topp leen yàlla wa atiu rasul topp leen yonent bi wa ulil amri minkum ak ñi nga xam ne ñoo jiite seeni mbir mooy seeni nguur yi seen njiit yi da ngeen leen topp topp leen yàlla topp leen yonent bi waaye topp leen njiit yi fi yàlla teg nekk ay jullit di leen jiite ci diine léeg-léeg nag ñu jël aaya yi di ko firee ci sunu nguur yi yenn xale yi sax ci masala yi la ñuy teg seen tànk naan dañoo war a jaayante ak buur yi ñenn ñi sax dañuy def iftaane ku gëmul buur yi wala da ngay dem safara lu nekk ngay dégg ci borom xam-xam yi ci taral ak topp buur yi nga xam ne ci laïcité lañ jiite bu ñuy topp kay dañuy topp buur yi ñu jiite ci lislaam waaye ñi nga xam ne ci laïcité la ñuy jiite di ñu ci xëcc ci lu bon di yàq suñu diine di daganal lu araam alxamis la xaw ma may bañ a may bañ a fañ dama fàtte bis bi xaw ma alxamis la xaw ma àjjuma am na ci fan yi fan bu ma bis bu ma dem Dakar hôpital Dantec dugg ci benn essencerie fekk fa benn xale bu ndaw di jënd sàngara moom moroomam ci ay canette canette sàngara lañ jënd mooy canette yu verte yi xale bu ndaw ñaari xale yu ndaw jënd sàngara jaran bëccëg ma taxaw di leen xool taxaw di xool mu jël fay ñu delloo ko mu jël dugal ci ay mbuus ma taxaw di ko xool mu dugal ko ci saakam ñu wàcc as bernard ci géej gi xale yu ndaw jaay sàngara bëccëg Sénégal ma ñëw di ko naqarul benn xale ne ma noppil li maamu laay sàngara si nii lay tambaambaloo ak bon bi fu ñu jëm léegi il paraît léegi dañuy jaay sàngara ay mbuus mbuus quoi mbuus cent franc tuddee ko salañ bind ci salañ salañ ban lañ jëm te yooyu ndaw yi fekkee nguur yooyu nag ñooy ara ñooy daganal loolu est-ce que dañ naan jullit ñi nañ topp nguur yooyu yàlla de bi ñu ne yonent bi ne na ngeen topp nguur dana nguur guy digle lu baax suñu topp nit daal na fekk muy digle lu baax laa taata li maxluqin fi maasiyatil xaaliq léegi nag instant yi lu nekk la nuy wax lu nekk la nuy wax nit ñi bu fekkee buur bu gëm yàlla la bu fekkee buuru jullit la bu fekkee buur bu yar nit ñi walla mun nañu soññ nit ñi ñu topp buur boobu waaye ay kàccoor ak i saay-saay ak i bandi ñii daganal dorog ak yàq jàngu nit ñi yàqu diine nit ñi kenn xamul Sénégal fu ñu jëm billaahi ku dëkk Sénégal te tiitoo rek doo nit ku dëkk Sénégal instant yi te tiitoo yéen sax mun ngeen bañ a xam danger yi parce que amagu leen njaboot mais ku am njaboot fii ci réew mii te tiitoo doo nit kenn xamul nit ñi fuñ nar a jëmal la jikko yi ñu yàq comportement yi ñu yàq télévision bi moo télévision yi rajo yi subhanallah yal na nu yàlla dimbali yal na nu yàlla jubal yal na nu yàlla delloosiwaat ci dëkk sunu borom nee na topp leen yàlla loolooy li war de yéen ñi gëm topp leen yonent loolooy li jaadu ak ñi leen jiite wa ulul amri minkum yor seeni mbir mu ne fa in tanazaatum fi shay bu ngeen amee wuute ci dara ngeen xëccoo ci benn mbir farudduhu delloo leen ko ilallahi ci yàlla war rasul ak yonent bi saa yi ngeen amee problème ci seen wàllu dund ci seen wàllu diine lan ngeen war a def ci jaamu yàlla lan mooy àtte loolu mooy delloo leen ko ci yàlla ak yonent xool leen lan la yàlla ak yonent wax mais lii leer na lan moo tax Sénégal tey ñu am problème te te mënuñ cee génn dañoo wut dañuy wute ci julli yi wute ci koor wute nu ñuy aje wuute nu ñuy tudde loo wax rek mën nga ne wuutee ngi ci loo wax loo jël rek wuutee ngi ci wala wala tukulóor yi ni ñuy tuddee doom bokkul ak olof yi olof yi bokkuñu ko séeréer yi séeréer yi bokkuñu ko joolaa yi joolaa yi bokkuñu ko ku nekk rek ak sax sa façon noo koy defee ko ni min tawi mawɓe ɓe ina waɗa minen ko ni min waɗa keneen jóge fële ñun nii lañ ko xamee ah bon sunu maam yi nii lañ ko doon defee ñun nii lañ koy defee waaw seen affaire yooyu xoolal teg leen ko fële ñun gëmuñu loolu ñun dunduñu loolu ah oui ah ku nekk di gir jaay gir yi quoi ci diine yàlla bi fu ñu jëm fu ñu jëm te yàlla indil nañu solution fa in tanaza'tum fi shay farudduhu ila allahi wa rasul su ngeen amee wuute rek yàlla nee ne indi leen ko ci man ak sama yonent mu ngo farudduhu ila allah wa rasul in kuntum tu'minuna billah gis ngeen charte bi su fekkee gëm ngeen yàlla li ngeen di wax ci yéen dëgg la kon lan ngeen war a def mooy delloo ko ci yàlla ak yonent mooy loolu in kuntum mu'minin gis nga waaye ba nga xamee ne gëmuñu moo tax boo xamee benn waaye bon nañ ko nañ dem ñu seet alxuraan lu mu wax mu ne xoolal gis nga alxuraan dafa mën a wax lépp def nañ fi benn xutba ci imaamul mahdi ay gaa génn naan waaye yow mu ne alxuraan alxuraan alxuraan dafa mën a wax yëpp am yoo xam ne du nekk ci alxuraan ah waaye yow ah léegi bu nekkul ci alxuraan fu muy nekk ci sunna léegi nag bu nekkul ci alxuraan nekkul ci sunna fu muy nekk ijma nekkul ci alxuraan nekkul ci sunna nekkul ijma fan la nekk mooy caaxaan la ah oui ay fola jeex na kon nag loolu na ab jullit na ci bàyyi xel waaw soo bëggee am diine daal xoolal sa diine bii ngay def ndax yàlla wax na ko wala yonent wax na ko wala lan la ci boroom xam-xam yi wax waaye yow diine boo xam ne yàlla waxu ko yonent waxu ko boroom xam-xam yi waxuñ ci yow nga dem fàqe fële rek indi sa diine jox nit ñi waaw boobu ban diine la fu mu jógee kan moo ko santaane ah laa ilaha illa tey benn xale bu jigéen mu ne ma oustaz tey gars yi dañuy raxas de mu ne ko luy loolu mu ne tey la dernier samedi tey moom dañuy baal ba dagg dëkk bi mu ne dañuy fecc ba tarxiis mu ne ko moytu leen damm de ki ci tarxis ba damm de xaw ma la wax yàlla ah bon mu ne mu waaw tey la dernier samedi tey moom soirée yi ñëpp ay tëgg mu ne ma dansin ñëpp ay tëgg mu ne man ko lu tax mu ne dañuy war jeudi te xam nga koor gi moom kenn dootu mën a def dara soo tëg tëg tëg tëg tëg xanaa mënuñu ko yokk mu ne ko allahu akbar xoolal sénégalais yi fu ñu toll léegi am na ñu bëri ngay gis seen kanam yi commencé ñëkk ñun kokk lëndëm waaye soo ne lan la mu ne waaye koor gi ñaata fan a ci des nga ne ko est-ce que du ginnaaw suba mu ne chuut tut tut tut non mais dañuy woor nii rek ah non mais affaire bi gaaw na comme ñu ñuy nar a rey parce que dañuy woor parce que dañu jàpp ne koor mbugal la quoi koor da leen di mbugal koor da leen di tere dund loolu moo tax fi mu nekk nii si allahu akbar bëri ñu ngi ñuulal kanam waaw dama tey laay ndékki sama dernier ndékki tey laay añ sama dernier añ tey laay reer sama xaw ma tey laay tey laay mooy sama dernier mooy léegi boo demee nga mooy nga dee sa nit ñi ñu nit ñi di ñu xalaat wala léegi def nga ko après na nga ne da ngay tuub la yàlla baalul parce que yaa ko tey la yàlla baalul foo jëm nga dund ba dee nga ñëw dajeek yàlla wala dundee dee jar nay xalaat de ndeysaan dee jar nay xalaat fu mu toll war nañ xalaat de benn xale bu góor day moy yàlla di moy yàlla di moy yàlla ba feebar ñu yóbbu ko hôpital mu tëdd nekk ci sukuraat indi leen ma kaamil ndeysaan gars yi ne ah indi leen ma kaamil gars yi daw indi ko kaamil mu ne jox leen ma ko ñu jox ko ci ñaari loxo yi mu téye kaamil yëkkati mu ne akfuru bi rabbi hada alkitab akfuru bi rabbi hada alkitab mu ne maa weddi borom téere bi borom téere bi maa ko weddi mu dee kooku lan ngeen xalaat ci moom lan ngeen xalaat ci xale bu góor boobu indi leen ma kaamil ñëpp ñëpp yaakaar ñu defe ne day wax lu baax mu ne maa weddi borom téere bii après mu dee parce que loolu la dundoon waaw ku dund ci dara dee ci ku dund dara dee ci ku dee ci dara dekk ci soo dekkee ci lu bon nga ànd ak moom dem safara borom bi nee na bu fekkee gëm ngeen yàlla gëm ngeen àllaaxira wal yawmil aaxir delloo leen ko ci yàlla ak yonent mu ne zalika loolu delloo ko ci yàlla ak yonent xayrun moo gën waaye waa ahsanu taawila moo gën a sax rafet nuñ koy firee ndax da ngay ñëw fekk yàlla wax na yonent wax na nga noppalu delloo mbir ci yàlla ak yonent zalika xayr loolu mooy lu baax loolu mooy yiw loolu mooy rafet loolu mooy wane ne yow am nga imaan am nga problème nga yóbbu ko ci sa borom waaye fa ngay fekk fir bu rafet fa ngay fekk lu leer lu dalal sa xel lu lu def sa conscience mu tranquille nga normal jeex na waaye nekk fi dugg ci ba mboy mboy gi lii lañ fekk diwa lii lañ fekk sunuy maam ak ay aadaak ay bidaak ay xarfa fuufaak ay yu kenn xamut yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko lii moo doon dar si tey asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu